طيب مو بوكو تي يوي بليغي موي نيت كي بو فكانتني باس باسام ويرنا موي ليب ميرام داتي ديلو تي يالا ديلو تي تي يونتبي عليه الصلاه والسلام موي ريفرنسام تيري يالا بي لاكوي ديف اك سنة يونتبي عليه الصلاه والسلام كوم نانكو يالا ديغالي ndax yalla dafa ñoo wax اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله lepp lo xamanteni da ngeen ci wuté ci mbir mu mëna doon atem delo len ko ci bu ñu ko delloowee ci yàlla yàlla delloo nañ ci alquran delloo ci sunna nañu fa in tanasatum fi cheyin farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tuminuuna billahi wal yawmil axir lépp loo xam ne wute ngeen ci ci seen mbiru diine na ngeen ci dellu ci yàlla akub yonentam alimam ibn xasma nee na dellu ci yàlla mooy dellu ci téere yàlla bi dellu ci yonente bi alayhi salatu wasalaam bi muy dund mooy dellu ci moom laaj ko bi mu fi jógee alayhi salatu wasalaam mooy dellu ci njàngaleem bi mu fi bàyyi nee na noonu la ko borom xam yi tekkee te loolu mooy lu wér kon bu yàlla di delloo nit ñi ci lépp lu ñu wute ci diine ji nga xam ne mooy alxuraan ak sunna li muy tekki mooy yàlla mi ngi ñu doon junjal nañu ñaar yooyu duñ fi mës a jóg loolu yenn borom xam-xam yi ne yàlla dafa sàmm alxuraan sàmmal boppam sunna bokk na ci yiñ tegtaloo delloo gi mu delloo julit ñëpp ndax wax jooju yemul rek ci saxaaba yi doon fekkee alxuraan bi muy wàcc fekk bi yonent bi di dund alayhi salatu wasalam waaye laayee jooju ci julit ñëpp la la jëm ndax ya ayuha alladina amanu atiu allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum la tàmbale te ya ayuha alladina amanu ba léegi nam doon wax ak saxaaba yi ñiy dund suñu jamono ji tamit noonu lay wax ak ñoom te yàlla du la digal loo xamante bi bii xam na ne lii mënuloo ko doo ko def voilà dafa bokk ci shurutul amr al imkan dafa bokk ci condition yi tax mbir ñu war koo mën a digle mooy mu nekk lu mën a nekk lu faisable luñ tuddee doobal loo xam ne lu mën a nekk la léegi bu fekkuloon ne dellu ci yonente bi alayhi salatu wasalam ci njàngaleem bu fi jógee du mën a nekk ndax sunna bi day réer dara doot fi nekk kon yàlla du la ko sant yàlla sant na ko saxaaba yi santuñu ko sahaba yi dañ daan dem ci jëmmam bi mu fi jógee ñi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw bi ci sunnaam la dem ci njàngaleem kon ko nit ki bu pas-pasam wéree ci ñaar yooyu lay dellu moom lay def mu nekk référence am mooy téere yàlla bi ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalam te moom la waxoon ne taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaaballahi wa sunnati bàyyi naa ci yéen ñaari mbir yoo xam ne du ngeen réer li fekk yéen a ci mooy yéen a ci jàpp te loolu mooy téere yàlla bi ak samam jàngale di sunna yonente bi alayhi salatu wasalam koo xamante ne sa pas-pas wér na la ñaar yooyu doy na la ñaar yooyu doy na la mu bokkaat ci tamit ba léegi ci njeexitalu pas-pas boo xam ne pas-pas bu wér la athiqatu billah wa tawakkulu alayhi mooy wóolu yàlla ak sukkandiku